Mbakke yaay sunu ndey baay di mag di maamoo yaa di sëriñ ak doon bar ma daamoo yaay sunu ndey yaay sunu ndey baay di mag dëpp sëriñ na nga doon barmadaama yaay sunu ndey dimaam dimaamoo bala ay ta yaay sunu ndey baay dimaamoo yaa dëpp sëriñ doon barmadaama waa toog bay daa di jël bala ay na yaay sunu ndey baay di mag di maamoo yaa di sëriñ yaa doon mbër ma daamoo Cheikh Modou Moussa ngoog maa si leen jox taxaw ca kaw màgg Cheikh Modou Moussa jar na ko jóg leen màggal maam yi sëñ Mbacke soxna loo waay na màgg Cheikh Moussa jël na ko de bala ay ay sunu nday di baay di mag di maamo ya di pusiri ka doon barmadamo ya doon barmadam barmadam sëriñu doon barmadam bala ay ay sunu nday di baay di mag mamoo yaa dimbali doonu madamo yaa doonu madam madam barpadam barpadam Mustafa Ndakaaru yaakaar nañu la ingila iramo way buri yetugum yaa nagum limamo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 ba xoolee suñ teewaay ak suñ taxawaay mooy monsieur le maire Abdou Lahad Ka moo ñu yabal léegi bi ñu yabalee ñu ñëw pour suuf si nga xam ne moo nekk ci digg tali bi ñu ñëw pour dindi ko pour nga xam ne tali yi dana gën a yaatu ba pare taataa yi fi daataa yu yëpp boo tawee du mën a am si kaw tali bi loolu daal moo nekkoon suñ taxawaay. moyens yi ñu déployé mooy indi nañ fi. nombre personne bu am solo indi fi ay peel indi fi ay brouette indi fi ay saako indi fi ay râteau daal di fi indi quelques oto quoi pour ñu mën a yóbbuwaale mbalit mi quoi. loolu moom mooy chaque jour dañ koy wax quoi parce que ñun chaque jour ñi ngi liggéey parce que yaakaar naa ne Feera moom lenn la mooy day entretien tëli yi. sa entretien tëli boo ko waxee rek mooy kanaal yëpp da ciy bokk parce que ab kanaal bu doonee dafa am suuf wala mu am mbalit. bu tawee ndox mi du jàll kon ñun li ñuy wax gaa yi mooy nañu moytu di fa mbalit mi di ko def ci kanaal yi tëli yi it ñu bañ ñu bàyyi ndox miñ ci ndox miñ ciy sànni waaw di wax it ñu gën ñoo jàppale si ay matériel pour ñu man di génne suuf si si dëkk bi sa waa dëkk bi ñoom it ñu xam nit ñi liggéey bi ñuy def si dëkk bi pour xam nga ne léeg da ngay dindi suuf war koo sotti fenn ñu ne la dox fa sotti loolu lépp ñu war ñu see dimbali ak ak ndox mi ñu sotti si digg tali bi loolu lépp daal war nañu see jàppale bu baax a baax a baax. man la Badara Niang Baye Alla di conseiller municipal bokk ci commission de l'environnement euh, ni nga ko laajee at mu ne bu màggal gi jub see maanaam li tàmbalee ci CLD yi CDD CRD lépp commune def cay teew di taatan pàgguteef yi nga xam ne day jóge ci communauté bi loolu it nañ ko daan defee lañ ko def eh, yooyu yëpp teewe nañu ko waaye xam nañu lenn lu ci nekk la ca sëriñ bi sàkk woon ci ndaw yi mu yebaloon ca jataay yooyu ci njiitul sëñ Ousmane Mbacké Gaynde Faat mag ñi mu ko àndaloon lenn ci loolu nag bokk na ci lii ñuy taxawal tey muy opération mbale yi nga xam ne tey ji lañ ko jàpp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 Euh, indaale vraiment ñoom aussi logistique bu doy ndax indi nañ fi pelle mécanique indi nañ fi ñeenti benn yu nga xam ne mi ngi ci liggéey bi waaye ñoom it noonu la ñu def dolli ci carburant ñooy assurer seen carburant ñoo sol tenue verte yooyu ñoom aussi ñi ngi woon sur le ñi ngi sur le terrain wàcceguñu fi ne ñu ngi ci liggéey bi vraiment ñoom tamit di def liggéey bu am solo loolu lépp di service bu nga xam ne ni ko sëriñ bi sàkkoo woon ci mbale mi vraiment noonu la ko commune bi taxawee ak service de l'état dikk taxaw ci taxawaay boobu léegi rek coordonnateur bi jaar na fi ci comité bi wax dëgg yàlla doon dikk di suivre liggéey boobu di ko superviser wante ànd na ma moom ba mu ñëwaat fii ci commune bi ci commune comité bi pour que vraiment liggéey bi ni ñu ko gisee ak it ñoom ni ñu ni ñu ko saytoo vraiment ñu wax ko wante yaakaar naa léegi ci turu euh, Serigne Cheikh Mame Say wànde ci turu Sowru Mbay mi mu doon waxal ak délégué de quartier yi mu àndal yëpp yaakaar naa sant la def ci liggéey bi ndax lépp lu daan def gis nañu ne la ci indi en terme de jàppale ci mooy matériel wala personnel dafa dolleeku wànde gis nañu tamit positif ba ca àndal ci wàllu liggéey bi ci waxtu wi ñu toll bi ñu tàmbalee ak at yi ci des gis nañu ne avancement ak positif bu bu bu am solo dolliku na ci kon loolu lépp ak sant la te loolu ñoom ñoo ko waxal seen bopp waaye loolu ñun vraiment dañ ni may euh, euh, commune bi muy état ay donga lañu fi xëy na loolu du ñàkk ñu tudd tur yooyu parce que institution la wande nañu xam ne daal ay donga lañu ay taalibe lañu te sëñ bi dafa sàkk kon ay taalibe ñoo dikk di jëfal ndigalul sëriñ bi vraiment di ci sant bu baax a baax li ñu ci boole wane di ñaan yàlla dolliwaat taxawaay bi ak passé ba li ko sëriñ bi di bëgg rek wala communauté bi dong yi nga xam ne ñoom la sant mu di jëwriñ lépp lu ñu saxlu rek ñu mën cee taxawee noonu. Euh, xëy ma mayee ma def tuuti glissement yaakaar naa wàllu curage yu fosse septique yi liñ ci demande woon depuis démb opération yi tàmbali nañ jox nañ leen ñaari hydrocureur yu nga xam ne hydrocureur yu mag la c'est des hydrocureur de 20 mètres cubes yu nga xam ne moom la ñuy jël démb ba tey ñi ngi ci bàyyeeguñu nga xam ni yaakaar naa ne c'est quelque chose comme 120 voyages yu ñu leen war a defal te loolu lépp ñi ngi sur le terrain di ko def ak comité bi bàyyeeguñu. man nga def glissement léegi nii bu au delà wu curage boobule euh, yaakaar naa entretien wu réseau bi aussi. suñu équipe yi nasel bi mu ngi fi Mori Gueye moo leen jiite ànd ak les éléments de la commune pour que lampadaires yi nekk fi ci am défectueuse yi bi ñu ngi ko di ko changé di ko remplacé yi contacteurs yi tàkkulu si ñu ngi ci di ko taal yaakaar naa ni buñ ci wàccee tey ak suba incha allahu rabbi li daaru xuddoos ak penc yeeg yëpp wax naa ni lépp lu fi nekkoon lamp moom da leer leeraay bu nga xam ne dana assurer euh, vraiment euh, qualité ci ci ci ci ci bisub màggal gi. vraiment loolu lépp ay ay ay taxawaay la léegi nii tamit vraiment euh, service d'hygiène ñi ngi soññee. pour que dotation wu carburant ba produit yi ñu war a indi nii léegi nii rek maa ngi doon wuy téléphone ci loolu ñoom aussi pare nañu pour ñëw vraiment désinfection bi ak désinsectisation bi nga xam ne war nañ ko def loolu aussi lépp lu ci commune war a def tout est prêt ñoom lañ doon déglu rek comment capitaine bi laaj lam ca soxla bind ko jébbal ko commune pour que ñu jox leen ko ñu mën a def service boobu xam naa ne fii leen gis ci kër yi vraiment lu ci war ci wàllu pompe aussi ñu def ko loolu lépp daal euh, yàlla bu baax ni mel ko waxee ndax commune moom euh, pàggutee bi la pàggutee fub dëkk bi la kon lépp ñu soxla rek ak nu service ba mën a demee rek ñun ànd ci taxaw ci rek la ñu war a def ndax ndénkaanul commune sëñ bi rek la ñu yore vraiment ñi ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax yéen waa presse bi di relais yi di ay dongay dëkk bi di doomi dëkk bi gis nañ seenu a baax site yi nga te di doomi daaru xudóos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 ba léegi la fi sëñ Cheikh Lapp jóge ngir ñëw doon indi kàddu Cheikh Mouhamadou Mountakha ak ak pas-pasam moom it ak yéeneem ci liggéey bi. Euh, bi ñu ko defee jël nañ liggéey bi nag def ko ay ay ay ay comité maanaam ay commission daal kenn ku nekk ñu am luñ la dénk ngir nga taxaw ci loola am na bu ñu dénk wàllu finance bi euh, am bu ñu dénk wàllu gasoil bi am bu ñu dénk wàllu oto yi am bu ñu dénk euh, communication bi am bu ñu dénk maanaam coordonnée bi. ki nga xam ne lépp lu aju ci liggéey bi rek ñoo koy coordonné ñooñu itam commission la bu taxaw boo xam ne dénk nañ leen ko noonu euh, euh, nag ñu dénk nu wàllu oto yi nga xam ne fu oto jóge ci oto benn yi muy benn diiru wala muy benn boo xam ne àggul ci diiru noo leen di saytu jël oto yi boole leen ak ay convoyeur yoo xam ne dañuy dugg ci dëkk bi nag di liggéey liggéey bu wër jamono yi ngeen di laaj sax dafa tollook ñu ngi ci terrain bi waaye bu ñu demee ba ci xawli kanam danañ am résultat yoo xam ne mooy wane ne liggéey baa ngi bëgg a synthèse ndax danañ xam euh, oto bu nekk ba mu xëyee boole nañ ko ak benn convoyeur jël nañ fi seen numéro oto yi jël euh, turu borom oto yi jëlit convoyeur bi jël seen numéro téléphone jëli numéro oto yi waaye bëgg nañ bu ci kanamee danañ jokkoo ak ñoom oto bu nekk la mu am ci voyage dana wax ne nangami voyage la am suñ boolee loolu lépp ba mu àgg ba liggéey bi egg danañ xam ne kon total nangam ci voyage mooy mbalit moo nekk fii ci biir moo jóge ci biir dëkk bi. waaye ñu ngi liggéey nag fii ne moom ñu ngi ci terrain moo tax mu ne a wax ci loolu waaye gis nañ ne xel dal na wet yëpp xel dal na ci ci baax ndax mairie jàpp na bu baax euh, ICS jàpp na. Euh, ñi nga xam ne yor nañ seen i oto te euh, di ko joxe ngir sëñtu Tuubaa joxe nañ ko Euh, am na itam euh, regroupement bi nga xam ne ñoo jiite ñoo yore euh, benn yi sëñ Modou Diop a ngi ni toog ngir moo ko coordonné waaye ñoom ñëpp def nañ seen taxawaay ku ñuy wax El Hadj sàmb Samb itam def na taxawaayam ci biir oto yooyu ba liggéey bi daal xel dal na ci bu baax a baax ci lépp oto yi ndaw yi nga xam ne ñoo yore communication bi di wër comme rajo yi fi jaar nii di wax ak di cercaler xool liggéey bi ba xam fu mu toll ak fu mu dese yooyu itam dañ koo able Euh, seen i borom àll ku ñëw alaaj Serigne Gueye Darou Nahim ab nag ak sëñ Cheikh Ndiaye village mi ñoom jëm dañoo jël oto rek joxe ko ngir ñu xam ne liggéey bi sëñ Touba moo ko moom Cheikh Moustapha moo ko moom mënu ko indil. Euh, mbale mi nag am na kilifa gu mas a nettali bu yàgg ne bi ko Cheikh Moustapha biñ koy def di ko gàttandoo magal gi bale nañ ba eggal Cheikh Moustapha ñëw jël mbalit ma ëmb ci garaam bu kon ku ne xam na ne setal Touba ku ko def am nga lu bari loo loo loo set ne kon nag euh, ku ci góorgóorlu rek suñu borom daan la taxaw ah bis bi itam rëy na rëy goo xam ne xëy na benn bis bu ni mel amut ndax bis boo xam ne boo ca fanaanee ba asamaan set nga ne ba nga juddoo ci sa ndey kooku sëñ Tuubaa rek moo ko mën a kon loolu ku nu ko ku la ko indil saa bu taxawee jotee ñu ne nañ ko euh, nañ ci sóobuwaat ku ne danga caa war a jóg def ci seen kam kàttan kon loolu mooy tolluwaayu liggéey bi xëy na des na ndax boo wàcceegut ci liggéey mënoo synthèse ndax euh, waaye lii tolluwaay la rek fu ngeen fekk na si ñu man leen cee wax loolu waaye commission yëpp ñu ngi dox oto yaa ngi ci terrain bi dañ leen a jël par gox nag oto yi ju ju benn barab dañ fu ne ngi jëm Sura ñii ngi jëm Daaru Xuddoos ñii ngi jëm Daaru Ndiaye ñii ngi jëm Boori New ga ñii ngi jaar Béyti euh, kër Sëñ Cheikh Mbacke Madina fu ne waaye oto jëm na ngir ñu bëgg mbalit mi lu fi mën a jóge rek dana fi jóge euh, bu ko defee loolu mooy tolluwaay bii nu toll ci liggéey boobu Euh, gis nañ nag taxawaay yu bari ci euh, siiwal gi ak bëgg nit ñi yëg ko ak taxawaay bi rafetaay bi yooyu yëpp gis nañ ñi ko yor ñu taxaw nañ ci temm ba mel ni yéen ñi rek ndax lii lépp ab yëg-yëg la ak itam jàllale xibaar boo xam ne ku ci jot suñu borom mën na la doole dafa taw feex kon loolu moo doonoon kàddu yi nga xam ne euh, xëy na bu deseet ca kanam lay ko waaye bii nu toll moom foofu lañ toll ci liggéey bi. wax dëgg yàlla leen ñu ngi ci biir terrain bi. ñu ngi dem ñu ngi yóbbu mbalit mi nag bari na lool moom gis nga leen nii bu ñu sottee rek dellu si waat waaye du mën jógee dañuy dellu ba mu jeex rek loolu moo taxoon ñu ne kon ñu jox ma kàddu gi ne naa leeral loolu waaye ñu ngi jégg lu baax di sant bu baax